Pape Borom Pikine. waaw maa yàlla bu wér. ñu ngi si jàmm bu baax. Pikine ni ñuy dundee quoi hmm. tey borom dëkk bee xewle suma rakk moo xewle suma xarit moo xewle Pikine na xewle waaw parce que tey bii mooy troisième face à face xëy na ñu may gis si yeneen camp mais kii suma rakk la suma lépp la. kër gi nag su ma fi yàlla indee Pathé balde moo tax ni may taxawoo yeneen mbëri laay taxawoo suma rakk ji te xale bu yaru la xale bu ma jox cër la waaw dam ko fekk ak nag ak moromam yi tey mu ñoom Alaaji Mbay gaa yi fii xale yi nii mais man magam laa lii laa mel ci Pikine ku ci ci am bés dangay ngay foog ni moom rek laa bëgg man noonu laay doxalee pikin loolu laa bëgg nit ñi di doxalee Pikine waaw may félicité nag promoteur bi Ibrahima Diop muy suma xarit ñu nekkandoo woon fii ci biir Pikine di takk ay banderole tey mu dem ba tëggal Ama Baldé komba kon ñun dañ ko ci félicité war ko si jàppale di wax Pikine waa yëpp nañu génn. Mhm. mais Pikine fu mu toll nii avant ñu ñëw maanaam si face bi tey. Mhm. Pikine fu mu toll dafa bëri ay bëri bëri presse am nañ komba mhm. boo ñaa Eumeu Sène. Ama Baldé Pokola. na ngeen waajee loolu yëpp. dara. ñun dañoo mën dañoo mën bés te tey ñi nga tudd ñoo ñëpp suñuy rakk lañu surtout sama doom jooju nga lim muy Pokola man dama ne man Pape Sarr man maa koy def roi des arènes te su ma ko waxee rek ñi may seetaan war nañ ko gëm ñii ñëpp ci zéro laa leen toppee ba tey mu ngi nii billaahi wallaahi tallaahi moo tax ma ne ma ne Pikine waa yëpp bàyyi xel booy boobu muy Pakola boobu nga tudd waaw sama doom la waaw. non muy bëreeg xale bu yaru muy serpent parce man dama taxaw nekk boo ko ci benn sculpture bu ñu wax rent DKR ma ne dama koy tëggal foral ko man moom laa foral moom laa bëgg sama xarit la suma ku ma jox cër la. Mhm. te ni waaw face to face bi ma fàttali lu bari face to face bi ma fàttali. beaucoup euh, euh, euh, Paate Gris Bordeaux seen combat bi seen mbapat ba feesu fees bi dama fàttali bi Gris Bordeaux di yàq combat Zil Balde bi feesu bi li muy li muy li muy. junj li may fàttali mooy tey Zil da ko war ndomb ba nga xamante ne dëpp ko rek moo ci des moom Gris Bordeaux tëb ci barrière bi ñëw xam nga buux Zil Balde yàq combat bi combat boobu moo defaru ni. nii combat a moom lay moom moom la bëgg xam nga confirmer mu leeral ko comme s'il daan na papa ñaari yoon daan na Ousa ñaari yoon waaw tey ñu benn bi da koo yàq waa ñu ngi ñaan yàlla daal ñu dem ko si jàmm di ko wax suma rakk yëpp ñu dem ci fair play mais est-ce que nekkul risque Modou daan Gris Bordeaux ñaari yoon. Hmm. yéen ngeen delluwaat bëre Modou di bëre di bëre Gris Bordeaux. non kii combat bu mu am duma ko jàppee risque. Hmm, hmm. combat bu mu am man du ma ko jàppee risque parce que mën na li muy def xam nga xam na ko ñun xam nañ ko waaw xam nañu tamit ki ñuy bëreel bu baax a baax na ko jox cër rek na ko jox cëru mag na ko jox cër fépp nag ci côté bépp mhm, ñu ngi ñaan daal mu jox ko cër waaw. ñu ñëwaat ci beneen mbir